defe naa boobu la de ah ah boobu la ah axban <laughs> le revue après day dugg revue affaire yaa ngi ci biir vidéo baa ngi ci biir. Ah, réew baa ngi nii yow kay laay déglu kay. ah ok ñu continuer ba pare. ñaari lébu yi. Ajaratu Ngoone Ndoye ak Aliou ñu koy nuyu bu baax madame Goudiaby Lalla Aïcha Fall borom Kofem. déedéet waay Lalla Aïcha Fall yow <laughs> suñu papa ji ñu koy nuyu bu baax ah. ak euh, président Doudou Wade. honorable député Diop Sy. léegi moom waaw. Ah, léegi Diop Sy <laughs> njaabu lan njaab bi après. yow njaab bi dafa ko. non sukk defal nànk nag. bu ñu grillé quoi waaw yàkkamti quoi. bëgg grillé. mais monsieur le maire il ñu raxas loxo yi. Mhm. ah bu gaan nee na kay léegi fii publicité gratuitement la lépp lu laaloo ak euh, corona ji. il faut ñu raxas defal sa vidéo indi. damay defal sama vidéo kay. indee def nañu. ay ja yonent bi. bii fana. sama bunt kër. jaajëf te Gibson léegi amatul nuyoo de nii rek la Macky lii la wax. ata waaw ah, kay ñëwal fii nag. voilà voilà fii dégg naa léegi ay raxasoo fi xew fii moom léegi daal ku dugg si ci biir kër gi daal gars yi ne am raxasul tuyel ma nii jibi ma raxasul léegi. Ah, waaw kay indi rek wala dara xew. tuuti rek voilà baax na ma ca sottil fii rek baax na boo paree doogu dugg fépp nag ah! mu ne fépp nii lañ ko war a defee yokk ceeb catal gi de mhm. consigne de des spécialistes de la santé yàlla ñu yàlla musal ci feebar bi. yàlla li mooy digle bi de. yàlla bu ci kenn dee. allahumma amiin. yàlla bu ci kenn dee. ba fii daal ñu ngi koy gérer de. dégg yàlla nañu koy dégg rek te ñi ci jot a dee it bakkan yooyu yàlla na yem foofu. Ah, ok muy Italie suñ mbokk sénégalais fa ne. Mhm. yàlla na leen yàlla suturaal. yàlla na yem foofu. jàppale leen. yàlla na fa yem. aar leen. yàlla na fi yem sax laay wax paa mu bañ a yem ah, foofu waaye yàlla na fi yem jàngoro ji ab pandémie la de balaa la ah, balaa la balaa mbas ma mbas la waaw ah, pandémie la nekkatul sax kon nag nanu ko mbas ñun ñëpp waaw dafay yaatu ni mu fu duggee mu génnaat fi noonu waaw ba pare en ba mu set waaw kese boo amee sa produit nga def ci waaw mu dindi microbe yi waaw xale yi ñu téye leen ci kër yi surtout ça ñu bañ a génne parce que boo ne dem école aussi mm-hmm. te ñu nekk ca mbedd ma ba léegi ne le mm-hmm. daara yi tamit ñu bàyyi ci xel daara yi surtout daara yi tamit ku mën jàppale leen nang leen jàppale. surtout. ku mën a jàppale nang leen jàppale foofu la xale yi bare. ku mën a jàppale nang leen jàppale. dañoo exposé. daara yi waaw daara yi moom. daara yi moom la bokk. ñu xool bu baax waay. ah kay après nga doog a dugg. Ah, waaw. léegi boo defee nii nag boo duggee am nga droit joxe loxo wala. ah. boo sa sa. déedéet du dox ma nuyoo. dox du dox ma nuyoo nuyoo kay jeex na fi. booy tisseeli boo amul masque nee nañ nga jël sa coñ ci def nii. nga tisseeli ci biir loolu aussi tamit lu baax la raxas say loxo en tout cas lu mu ci manti doon nii la ñu ko diglee kon nañu ko defee noonu ñun ñëpp euh, yàlla baax na donc donc yaakaar naa ne euh, war na nekk lépp ñëpp man man nga ci côté bi rek euh, flèche bu flèche bi ci côté bi noonu moom daal yooyu yooyu yooyu yooyu yëpp waaw maa la wax nii nga dem ci cage bi néegu ñax ba ok bu la neexee nag après nga dem ci foofu nga xam ne jeex na maa la wax lii. <laughs> xool ah tukki da ñëw nii. su ko loolu di nag tamit ah, ñu waaye ki jëlal sa temps waaye. voilà ah, ko benn par benn faram ko. tudd nga sponsor yi ba pare. tudd naa leen de ajaratu ay dañoo ngu xanaa mille milliards ak combat pat. ayca yéen a kaay groupe des médias la ñu koy tàmbalee. ay dañoo ngu jaaxal na ma. te xaalisam tëdd di ñëw xaalisam bii lu tax ko koo delloo jaaxal na ma. te dénk dañ ko ku ne dossier bi. Eh. terminé yéen a kaay ñëw ak ñun ci. lu ca fës. li ci fes kay noonu ngay gis. Hmm? waaw maa la wax lii maa la wax lii. ma ngoog de. Hmm? lii de lañ ne tëppi dagg. lu dagg noonu. waaw waaw. kii daal bu doon télévision la dañ naan signal ba. loo ko may ban couleur. rouge. xonq bi danger. tur <laughs> tubaab bi ko ragal. lépp lu xeetoog suñu wàllu dem ngeeg dikk gi suñu diggante France. Uh-huh. Espagne Italie ak Belgique ak yeneen i réew. Hmm. bokk na ca Maroc ak Tunisie yëpp. président Macky Sall nee na bu fi roppalaan wàccati. alhamdulilah da a def. alhamdulilah dégg nga. Mm. lii daal moom moo fi xew monsieur le maire. Mm. waaw. rek Sénégal jëm kanam. yoonu suuf gi tamit da nañ ci jël matukaay. waaw waaw yoonu su yoonu suuf gi nag moom. Mm-hmm. yoonu suuf gi nag monsieur le maire. boo bëggee dégg dëgg. Mm-hmm. waaw suuf gi daal tôt ou tard. daañu ci jël matukaay. waaw yee voilà. lu war la de. l' observateur ñëw ñun ci. ñu dem ci l' coronavirus bi. mu nekk nii tiitaange dugg na de. Euh, euh, si l' observateur. tiitaange dugg na mais waruñoo paniqué. démb li ma wax si rajo bi. Mhm. ñun ñi ne ci rajo yi ak télé yi bu ñuy communiqué war nañuy xool bu baax. li ñuy communiquer parce que nit ñi dañuy déglu. discours bi waaw. bañ tam di amal ay discours incendiaire. Mhm. tey ngeen dee tey jàngoro ji rey leen. tey mhm. léegi lii nee nañu taux de mortalité maanaam li ciy dee. déggoon nga médecin bi. même pas pour cent. zéro virgule nangam pour cent un pour cent. même pas deux pour cent. dégg nga borom xam-xam. alhamdulilah dégg nga waaye am na beneen français boo xamante ni nii monsieur le indiwaat na ko ci réew mi. ay waay ay waay toll nañ ci 27. li ma doon wax léegi nii mi ngi nii. Mhm. mi yi nga xam ne fi mu nekk nii leen a bàyyi jàngoro exposé waaw tëj l'école yi tëj léegi léegi. Mhm. léegi léegi waaw mooy loolu. gis nga ko nii Sénégal nag dara du dem dara du dikk. li ñu war a dundee war koo lekk li fi nekk nii nii nii nii ci ay denrée. ñetti ñetti weer dong la ñu mën a téye. déedéet dégguma la defal naa ñetti weer la ñu. war a dundee ñun. ñetti weer ñetti weer. ñetti weer ñetti weer. stock bi ñetti weer la la la mat tëg. ñetti weer. jàng na jàngoro ji de bu mu yegg foofu. ok ah, te président Macky Sall ngi nii daal di tëj nag. Mm-hmm. Ah, ah, jaww ji. vol yaa ngi nii direct ak indirect. gox yi nga xam ne dañoo am njort gu ñaaw ci ñoom yépp nee nañ ko ràpp tëj. Mm. France Italie Espagne Belgique Portugal Algérie Tunisie embargo nañ leen. yooyu tëj nañ nee leen bu leen ñëwati. lu leer la ñoo leen ko baal ñoo leen ko ñaan rek ñoo leen ko baal ci xol bu sedd guy. dëgg neex yàlla waaw kay. les écoles yéene kaay. les écoles lu mu wax. ma ni waxuma la wàllum koom-koom yi même artistes yi ci boppam. waykat yi. ak ndaanaan bi wéew dañuy perte. Eh, parce que bu ñu Pape Diouf a mhm. ak borom génération consciente. Pape Diouf ñaata. ndongo di ndongo di. bu daara ji famille. Pape Abdou Fall. Pape production. Ah, kay waay moo tax mu ne la artiste ak làmb ji Pape Diouf nee na. na. Hmm. alal ju bari pour 4 avril. arena am ci déggoo ma de. <laughs> arena ba. jot na génne koppar dagg ay billets dagg ay billets wut ay partenaire def ay publicité. jàppoon datam ba noppi lu ne jàpp datam ba noppi. doon xaar quinze mille personnes. waaye nee na yàlla kenn du moom. kum hmm. kal la jëye grand. ndongo dee ngi nii. nee na nekk nii dakkal nañ seen promotion wu album bu bees. yaa ma tele. dakkal nañ ko. ah bañ a dakkal. situation oblige Pape hmm. ñaata la perte ñoom fi nekk nii. doy na waar. non xoolal ñaata lañ perte. Pape Abdou Fall. waaw. il y a eu des pertes énormes. maa la wax pour le combat Pape Sow Siteu. maa la wax lii maa la wax lii. kay. maa la wax lii. loolu doy na waar évidence. évidence dañuy jël. est que jëmuñ ci wàllum suux. Hmm, suux wàllum koom-koom gi la la wax. moom la la laaj noonu de. suux. waaw ah waaw yow lii lii attention de <laughs> corona ji. ku mën a ñaan na ñaan de. ku mën a ñaan. ku mën a ñaan kay ñaanal. bilaay walaay. Vox Populi nañu Sénégal a ngi nii la. Mm-hmm. wër na boppam ndomba nag fi nekk nii. bu kenn dugg bu kenn génn ñi nga xam ne dañoo jot ci ñoom daal ne maara de taali mën nañu fee indil ab musiba baabu. nañ toog rek waaw kay. nañ toog rek journal bii nag dikk ak ñun ci doomu jàngoro jeeg kàcc yi nga xam ne dañ koy làq ci ginnaaw di wàllum. réew mi waaw fee news bi. Mm-hmm. lu doy waar doy waar kuy wax na xam de. ah laa ilaaha illallah. fu mu nekk nii. xaaral rek. accident laa meñ de. ku ko moytuwul ah, baaxul ngi nii ñu bi ne ni nga xam ne dañ ciy wax lu dul dëgg. Mhm. am na ñoo xam ne convoqué nañ leen. Ablaye Mbaye Peex a ngi nii. suñu bopp Salbe Ndom nee na may. anamu. daw na. ah ñu koy wër de. teguñu ko bët de. moo salbe anamu salbe looloo jar a <laughs> foo féete salbe noonu daal en tout cas boo bëggee dégg dëgg ah? ñu ngi koy wër ñu ngi koy wër ci réew mi le témoin yéene kaay ñëw ak ñun ci Sénégal mi dëkkal nag roppalaan yi France Italie mm-hmm. Espagne Belgique Portugal ah. tey tëj na buntu yo ñii leen nañ tamit carte avril ba doy na waar <laughs> 4 avril fu mu nekk nii daal. waaye waaye corona ji moom corona ji moom lii jàmm la. kenn du ko tuddee doom de bu doon bu doon bër kenn du ko dëkk de doy na waar yàlla baax na na ci réew mu bari coow. ah dugg na ci coow du réew mu bari coow waaye daa mel ni fi mu nekk nii de. <laughs> mu ngay fay coow. ah ndey looloo ma jaaxal. mu ngi affronté de. 24 heures yéen a kaay ñëw ak ñun ci. Mhm. ñu ngi nii ba léegi nii de. Ablaye Diouf Sarr ak Alioune euh, Ablaye Diouf Sarr ak Alioune Sarr. Mhm. deuxième phase riposte bi la ñu def. mu nekk nii roppalaan yi laa lay wax ni léegi. ah Birahim Seck day moom rafetlu na dogal bi nga xam ne président de la république daal dina koy jël. forum civil. waaw waaw. ok bu baax waaw kay. le suñu frontières yi ci wàllum jaww jee ngi nii teyal nañu ko juróom-ñaari réew. le soleil yéene kaay maa la wax lii de. moo wax suba kay 23h59. France la Italie Espagne. Hmm. Belgique Portugal Algérie ak Tunisie benn roppalaan bu mu fi jóge dafa leer Ablaye Mbaye Pexe ngi nii. ah wuyu ji na ba ñëw dañ ko yóbbuwoon gendarmerie. nee nag dootul wax. ah kay. xeetoog wax ji moom dootu ko defati moom moom. ah kay na wax ji sax. waaw. dañ laa bëgg. Ablaye Mbaye Pexe sax kenn da ko warul woon ñun dañ laa bëgg wax fa moom boo bëggee dëgg dëgg moom. ku bëgg président de la république la. dëgg ne source a ñëw a ci. gaa yi ñu ngay jàppe de. takk der yi fawuñu de monsieur le maire. takk der yi fowuñu détail la ñuy noo non non gis nga ko nii. ku fi ngénte ñu tas ko. Abdoul na mii ak Abdoulaye Fofana. Hmm. gis nga ko nii. magarak yii. ñoom ñëpp dañ leen a jàpp. ca Mbàkke takk der yi dañoo dakkal benn anniversaire. maa la ko wax. gis nga ko nii. nii de Xumbaay nii de Mumbaay. ca quartier Gaawaan la. ñu ne déet ni waay ñu tasaat benn daayira. <laughs> nii de Xumbaay. takk der yi dañoo fawul daal fawuñu de. kafuñu si réew day defuñu kafuñu si ñu si. léegi nag ñëw ak ñun ci. kafuñu si réew ñu si. lu doy waar a doy waar a doy waar. anamu doy waar doy waar a doy waar. anamu doy waar ñu ngi nii. Moussa la maire. anamu. libération. lu ñu wax. ah libération kay li mu wax bu yeboo ñu benn bennal ko tey. ñu benn bennal ko. Xadi Diouf démb tës ba. te ah, ñu rey ko. ndeysaan xale bi journal bi nee juróom la am. 15 ans. ëmb ñaari weer. deux mois de am fukki at ak juróom. ana kan moo ko rey. nee nañ doomu sëñ ba. doomu. sëñ ba Serigne Assane Fall. doomu Serigne bi ci boppam. ma nga ca kaw. nee na amul woon beneen solution. amul leneen. kon moom nangu na ne moo rey. amul leneen. nee na nag da koo yàgg a topp. ku ko yàgg topp ko wax ne ko. del bàyyi di wax ne maa la wanu looloor. waa tamit nag. après nag ci la daal di jël buum daal di koy xoj mi ngi nii mi ngi xoj ko ba mu sedd. buum baa ngi buum baa ngi garaaw. si ku nekk deux mois de grossesse. Oh. fukki at tax juróom. ci kanamu takk der yi moom Assane nee na su ma deru bàyyi laa bañoon mu yàqu moo tax mu bëggoon faa hmm. yemale coow. waa lii tam der bi gënul yàqu. doy na waar. boole na ñaari yàqu de. léegi nag xale baa ngi nii kii la. moom dee na noonu. kii mooy. mooy xadi. ndeysaan xale la xool ko. lu doy waar. 15 ans. Moussa la 15 ans nii nii nii fii la ak dundam yem. lii lii moom la kenn xamul lii lan la. cëy. <laughs> allahu akbar. yàllaay baal. yàlla lay baaxal yàlla bëri na sutura. ndax yàlla bëri na sutura. Ah! yàlla bëri na sutura yàlla baax na. ana Salbé. mi ngi si grand eh, place daw na. mu nekk Salbé gi grand place. na hmm. Ali Baba Kumanaar. Mhm. Oja lu mu wax tey. ah Oja kay Oja kay fi mu nekk nii. waa ki ci wet gi école gi ku mu doon. maire bi ci wet gi ne. yor rajo bi fi mu nekk nii que ñëpp a ngi ci corona ji. réew réew mi pëccëxoo quoi. ah ta ta <laughs> rajo kànkàn. journal yi ci boppam. corona ji la ñuy waxtaanee. yëpp corona ji. journaux yi nekk seen machine yi corona ji. Hmm. nekk ci tablette bi corona ji. corona ji. ñii fëgg da ngay jaayi masque corona. suñu yaay booy déglu rajo corona. te ku nekk noo koy woowee nag. maire yi xamul tur bi. soxla référence. <laughs> façon tur bi nekk maa ngi koy dégg ci coronavirus bi yàlla baax na ak la bëri tur. mais lii lépp koro ci la. <laughs> actualité oblige. Ah. nekk ñëpp dañ koy toog mu le maire lii kenn xamul la. <laughs> yàlla baax na yàlla ay baal tës bi. Ah. tës bi bu tës bi tey. Uh-huh. waaw tës bi tey de. tës bi tey nag tës bi nag monsieur maire. fu mu doon. fii ci ginnaaw la xëy fii. fan ci. ginnaaw des médias bi bindal ma ko. foofu noonu quartier bi fii nii. fii ci ruq bi noonu. boo jàddee ci koñ bi. suñu ginnaaw fii. nga tourné à gauche. benn borom saret. saret waaw. moom daal da dem ba fële. avant nga jot fële booru jàkka jane. waaw nga wàcc. nga wàcc. mel ni kuy dellu si fii ci kër gi. waaw. voilà léegi kooku lu mu def. borom saret. waaw kañ manteau gi borom tës bi. kaay wax tës bi lu mu doon nga ne. nee nañ ci ginnaaw kër gi. yax yi. borom sareet. mbalit ma daal sa waay sareet ba mbalit mi ñuy tibb. sareet. ay yaxu nit lañ ca gis. mbalitu la nit. ay yaxu nit yax. mbalit mi yaxit <laughs> safurlaa buñ juree jàmm. <laughs> nga ne lan. léegi c'est le niveau ah, attends moom da doon tuuri. man ay yaxit lan. dama ne fii la ne fii. lii du tribune xanaa. waa tribune waaw. boo yeggee tribune fii de. ci ginnaaw. olof yi booy dem jumaa ji fële. nga jàdd waaw. léegi dangay dem ba ci kaw nga mel ni kuy dëppaat. ngay dëppaat. fii nii lañ fekk sareet bi ñun. sareet baa ngi foofu. ah. ak borom sareet bi. demul sàndarma. <laughs> ah. moo ñëw gis affaire yi. borom sareet bi danaan mër. danaan mes. xamul.